aqlu fathin toxal fata min siwal mahmuusi jële ko ci xaraf weneen wudul hams laa yaraahu du ko gis basriyun basra duñu ko daganal wudul mahmuus rek mahmuus nag daganal nañ ko ni ki xab a nga ne xaba ku kuufiyun ko jug kuufe nag moom naqala toxal na ko moom dag daganal na nga fudul kii nga def ko fa ni ki raaytu bakran nga ni bakar dégg nga wa naqlu in yu'dam nadirun mumtani wa naqlu toxal xaraka bu buy waral ci baat in yu'dam bu fekkee dees di ñàkk nadirun ndendal baat bi dana tax baat bi bu ni mel dootu am ci arabiya kon mumtani un lu terew la dégg dégg de niki lu lay andil wasnu fi'ul ndax ci jamu taksir ne woon dana wax ni maanaam ci kanam dana wax ni wa fi'lun uhmila wal aqsu yaqi wala ci loolu passewul wa fi'lun luy indi fi'l kooku du am ci waxu arab fu'il moom dafa néew waaye am na ni ki du'il ismu qabila waaye fi'lun kooku amul su fekkee baat bi te baati arab ak loo mën a def dañu bëgg boo ko tuddee ñu mës a dégg lu ni mel waaye boo bëggee def naqlu gu lay indil fi'l kooku duñu ko nangu damm daal bu ko kasra dawloo kooku seetal neneen noo fa taxawe lu dul naqlu dégg nga su su fekkee da nga ni woon hada hada al ilmu léegi ilmu taxawe fa sukkoon nga ni ilm wala nga tadif mënoo ko fee taxaw ndax dafa ne in xafa muharrakan ndegam dafa topp ci xaraka te laam gi dafa sukkoon kooku moom du place u tadif waaye mënoon nga fee def rawm wala nga def lismaam aywa wala nga def fi sukkoon waaye nag soo fi defee naqlu mu andi adamu nadir lay doon adimu nadir soo nee ilm fiul daal di dikk loolu la ñuy bañ ndax ca awsaan ya nee woon na fiul amul ci lisimi arab safeen safaan bi sax barewul dàmm gi jiitu kasra mujj niki niki du il waaye nag am na abul aswad du aliyu nisbatun ila du il du il barewul du il fiul moom amul moom la ni wa fiulun uhmila wal aksu wal aksu yaqil moo tax naqloot su dee andi in yu'dam su dee tax ñàkkees nadirun ndendal baat ba day andi wasnu fiul ni ki hada al ilmu du ñu nangu nga naan hada al ilm kon bu dee bu fekkee dañuy ñàkk ndendam du dagan wa naqlu in yu'dam nadirun lil kalimati bi sababi naqli kon mumtaniun nañu seet neneen duñu def wa zaaka loole nag naqlu googu doonte dana andi ñàkk nadir lay sa yamtaniu fil mahmuus te li nu waxoon rek a tax diisuk xam sa ci mujj baat ñu sukkoon ko dana tax su meloon noonu ni kii boo ne ataytu bi kuf in wala bi quflin dén dén su dee ci quflin ñu tere ko ca du dëgg ndax fiul la ñuy bañ duñu nanu nangu nga naan xiful waaye bu dee mahmuus lay sayam tane nga ni ku fi ataytu bi ku fi in nga ni ataytu bi ku fi du dëgg moom la ni wadaaka loolu naqlu fil mahmuus lay sayam tane walaw ata walaw awjaba adama nadir ni ki kifu ku fi fuil la kuf in nga ni kifu o mana kufi ndax kooku dafa néew fiul moom maadum la ci waxi arab waaye fuil dafa néew ni ki duil dégg nga fi lwaqfi hatanisi ha tanisi lismi ha juil maana tani ta tanisi lismi mubtada la juila def nañu ko maana ha an muy ha fi lwaqfi ci waqf ha tanisi lismi juila haa fil waqf in lam yakun su fekkee nekkut wasila ñu jokk ko bi saakinin ci aji sukkoon joo xam ne saxa wér na bintun taaw taanisu lisim la yor dëgg taaw taanis la bu doon góor du ci ne waaye dafa jokk ci sukkoon gu wér ni ki nuun googu kooku nag kenn du ko mën a soppi taa foofu kon noona nga koy bànga ni bint jaa at bint waaye doo ko mën a soppi ha ndax sukkoon gu wér bu fekkoon ni sukkoon la waaye gu ràgg la ni ki alif ni ki tawraa wala salaa zakaa kon nga man ko kon maanaa kon nga soppi ko ha waaye doo ni zakaat tawraat déedéet kon da nga ko mën ndax sukkoon gi gu dee la dëgg moo tax mu ni in lam yakun ndem nekkul wusi la ñu jokk ko bi saakinin ci sukkoon goo xam ne saxa wér na ni ki bintun kooku moom bu ko soppi taa taxawal ca taag bu ko soppi ha wa qalla daa fi jam'i tasxiix qalla néew na daa soppi taaw taanis ha néew na ci waqaf fi jam'i tasxiix ci jam'u tasxiix bana koy moom mu wanna salim rek ni ki jaatil hindaah loolu qalil la ci seen wax dégg kooku lëg lafa lañu lëg rafet nga taxawe taa hindaat dégg kooku moo tax kooku moom jamu mu wanna salim moom soppi ko haa néew na am na ci seen wax nag wa ma dahaag lu ko niru ni ki baatu hayhaat xam nga hayhaata du jam wana salim waaye niroo nañu ci alif ak taa mujj ca moom itam néew na ngay wax hayhaa kon li bare hayhaat ak hindaat wa xayru zeyni taanis gudul yi intama askonono bil aksi ci sefaan la bare mooy taxawe fa haa bu dee bu fekkoon ni baqaratun la baqara moo bare kon di wax baqarat di ko di taxaw ca taaga lu néew am la moom it dégg nañu ko nag déggees na fi qawli baadihim yaa ahla haada albaqarat qa fa qaala mujibuhu wallahi ma axfadu minha wala ayat wala ayatan wala ayah la waroon wax mu ne wala ayat kee tam yaa ahla surati albaqara la waroon wax mu ne yaa ahla surati albaqarat yaa ahla suratil baqarat maanaam yéen ñi ko xam ne yéen yéen a mokkal saaru baqara ca wa xam naa ca waxuñu jëkk ñaa jëkk la ndax yoon yi jël ko noonu kooka ni ko ma wallahi ma ahfadu minha wala ayat loolu lu néew la bu dul jamu tasxiix kay taxawe xaaga moo fa rafet da di baqara ak aya waqif biha sakti ala alficli almuallaman بحذف آخر كأعط من سأل السكت على الفعل المعلاما على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل وقف تخويل هاء السكت جنين هاء وقاني باتو بوبم بو اندي لا دولي سي موجو بات بي غاي تخاو كوكو بنين اتي لا خام هاء السكت بوكول وون سي بات بي دي لين دون واخ موم دوتو لول نغا تخاو di indi haa gu ñu tudde haa u sakti haa u noppi bi ngay noppi rek nga tudde haa gi foo koy def alal fiili ci al fiil al mualli bu ñu ràggal bi xasfi axirihi ci mujjug xasaf mujjam ca ba ñu koy jasam dégg nga ca mu daari oma bu dee lamar jaat melaw jasam ca mu daari oma ca la ñu koy binnaal ne ci misaalam ci lamar aati joxal xam nga ata yaatu laam gi waaw la woon moo doon cosaanu baat waaye ata yuti mu daari o moom soo koy jasam looy wax lam yuti su dee lamar ba nga ni aati du loolu su ko defee nag ñu yokk fa bu la neexee jawaasan nga yokk ci haa u sakt nga ni aati wala lam yuti waaye nag jawaas la rek walaysa xatman وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراعي ما رأوا كأتاج هاجو فوفو جائز له ndaxte baat bi des na lu am solo cosaan yi des na ci aati ak yooti ku ci ne des na ay nag taa ci cosaani baat ba moo tax kon bu la neexeet bañ a defaawu sak ni aat wala nga ni lam yoot walay sa xatman doonul luy doon waajib في سوى ما بقي على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد بدون واجب لدول ci xaraf woo xam ne benn ca benn xarafa des ci xarafi cosaan ya niki lan iwatul i fi matalal liméngool ci ci laj waf feelu laj waf lamaram ak mudaari om benn xarafu cosaan a fay des wafaa yëf yi xam nga ni benn xarafu wéra ca ne moom doo ngay def ci des ca mudaari omuñ jasam ma dégg nga ak lamar ja soo dee lamar ji fi mooy matalan i wattul li mingool min waliya yali kii waa yaay su ko defee kooku lamaram foofu boo fay taxaw nag fokk nag moom xaagi xat ba la waajib la nga ni eh waaye ah na ngay taxawee yow arab du taxaw ci xaraka ah te yow itam baat bi wenn xaraf rek mënoo tëb tëb dikk sukkoon ko ah kon nag nooy def nga ni eh wala lam yaay foofu fal haa- haawu sakt foofu xatmun lu war la wa laysa al haau xatman wujuban waajiban fii siwaa maaka i ci lu dul lu xam ni dafa me benn xarafa des ci cosaan ya ni ki i wattul wala ñaari xaraf yoo xam ni benn ba zaida la ni ki yaay lam yaay du dëgg kooku war na nga ni lam yaay majzuman muy lu ñu jazam faraa i sàmmoonteel ak maara aw la ñu sàmmoonte ci atte boobu wa mu dem ci leneen wa ma fi listifhaami in jurrat xudif alifuha wa awlihalha in taqib maa ci listifhaam in jurrat fu ñu ko jare moo xam la ko jar xaraf la niki lima ak bima ak fiima ak amma yëpp dikk na ci alquran lima adinta lahu fiima anta min dikraha amma yatasaaluun fiima anta min dikraha yëpp maa listifhaami la fu ñu ko jare xadaf alif ga su ko defee soo fay taxaw nag mu ni wa awlihaa méngale ko alhaa ahaa in taqif booy taxaw mu nekk jaais ndeem la ko laaf xaraf la te wala muy waajib ndeke ndegem li ko laaf lisim la kon moom déet aywa su ko defee noonu lay leeral mu ni wa wa awliha méngale ko haa in taqif sooy taxaw haa ga nag jaais la ndegem xarafa ko jar ni ki lima mën nga ni lima waaye bu la neexee ni lim ndaxte dëgg la benn mi benn mim bi dong moo des ci cosaan gi waaye xarafu jar fokk moom yattasilu bil majruur da cay jokk ka annahu juz'un minhu kon dafa mel ni lima ñaari xarafa fi des moo na benn fi des ci cosaan de waaye nag xam nga ni xarafu jar fokk da ciy jokk soo nee lima ak bima mën nga ni lim ak bim bu la neexee ni lima ak bima ah walaysa xatman doonul lu war nag moom haagi ci maal istifhaamiya boo ko jaree fii si waa man ma ci ludul la nga xam ne in xafada dafa xafadu bismin ci lisim lisima ko la laaf ka qawlika naka sa wax jooni iqtidaa ama iqtidaa ama iqtidaa maanaa iqtidaa ama gan fayu iqtidaa la fayu zaydun maanaa gan fayu la zayd ban xeetu fayu la zayd fayu iqtidaa ama fokk da nga xasaf alif ga ndax dañu ko jar ak laafe waaye foofu nag xarafu xaa u sakt bi waajib la fi du dëgg ndaxte mudaaf ilayhi jokkaloo naag mudaaf ma waaye dootu niru mukk jus u bu ca bokk ndax iqtidaa baatu ñum la kenn du defee ni jus u la ci maal istifhaam yi kon maal istifhaam ya doo nga beru boog mel na fukk kon da nga boo fi bëggee taxaw nga ni ma du dëgg looloo ko waral li ko jar dadul xaraf bu doon xaraf la ni ki bim ak lima man nga ni bim wala lim lim faalta jawaaba lim faalta ci wal xadu dañu koy sukkoon miim waaw ndax xarafa ko jar kooku moom mën nga lim rek yem ci bañ a andi xaaw sakt soo fay taxaw waaye su fekkee nag lisima ko laaf ah lisim moom mënatul mel ni jus ubu ca yokk ba di ko mottali kon fokk nga ni iqtidaa ama soo fay taxaw walaysa xatman fii siwa man xafada bismin ka qawlika iqtidaa ma lu xam nga listifham dafa yooyo sadru kalaam lu ko laaf dal di ànd ak moom ci sadru kalaam la wa waslu zil haai wa waslu sil haai haai ajis bi kulli ma xorrika taxrika binaa in lazima wa ajis daganalal wasla wasla nasab ko wasla zilha i jokk haawu sakt giinuy wax daganal jokk ko bi kulli ma ci lépp loo xam ne xorrika maas nañu mu jëm taxrika binaa in maas ak binaal lazima goo xam ne sax na fa dakk faw te ndiroowul ak mu arab nag wuteeg feelu maat ni ki daraba dëgg la binaalam lazima lakinahu asbaha al mu araba niru naag mu daari om mën nañoo bokk doon sila mën nañoo bokk doon sifa mën nañoo bokk doon xaal dañoo niroo daal kon nag daraba maaska binaal la am gu fi sax dakk feeg benn góor gu raib moo ko moom waaye nag dafay niroonteeg yadribu mi ñuy liraab fu yadribu man dugg ci sifaag xabar ak xaal ak silas mawsul ak moom yëpp da koo man moo tax kooku nag soo fa doon taxawit waxal darab waaye bul ne daraba ñaareel baat bu feel bay mutaaddi day daal di jaawanteeg haaw mafool mel na mel ni ku noon daraba hóola woon nga ne daraba moom loolu taxaw sax duñu ko yokk ci ndaxte binaam lazim la naam waaye nag dafay niroog mu daari ote loolu dañ koy wattandiku kon nag lépp lu ñu taxrik maraka xarakak binaa goo xam ne lazima te niroowul ak mu arab ba kooku kon ni ki kayfa kayfa dégg nga man nga ne kay kayfa kooku moom man nga ci jokk xaaw sëtt jawaazan di du wujooba mu ni nag wa wasluhaa jokk xaaw sët bi xayri tahriki binaa in la uddima maanaa lazim jokk ko ci beneen boo xam ne yorul xaraka binaal gu sax shadda néew naa am boo ko déggee ci arab shaad lay doon waaye nag ustuxsina rafet lu nañu ko fil mu daami ci borom binaal gu sax gi te ni réewul ak fiil ni ki kayfa ni nu wax loolu beneen tawdixaat la ci li mu doon wax bu jëkk rek ah wasluhaa jokk xaa gi bi xayri taxriikin ci la deen beneen budul binaa gu xani uddiima ndax binaa uddiima moom tere woon na ko ci ci bayt bi passé jokk ko ci leneen geneen gudul binaa uddiima shadda du dëgg xam nga kee dafa koo tere woon ah waaye nag teewul am na chaz bu ca ne moom la bayt bi détail leeral nag jokk ko daal chaz la ñu di ko dégg ah ni ki tey alu baat la bu ñu binaal ci dàmm waaye du binaal gu ca sax dégg nañu rek wa ataytu naxwa bani kulaybin min alu waaye xam nga ni lisim bu ñu daan liraab la imrul qays nee na ka jul moo di saxrin xattahu saylu min ali dellu ci looloy cosaan jar na ko min ali ay min makaanin aalin waaye dégg nañu wa ataytu naxwa bani kulaybin min alu binaal ko ci dàmm waaye googu binaal du binaal la goo xam ne laysa mu daaman doonul gu ñu saxal dégg nga ko noonu ci misaal moom dafa ko gaar kooku nag jokk ko ca ñu dégg ni alu déggees na ko ci waxu arab waaye loolu shaad la loolu mooy maanaam wa wasluhaa jokk xaagi bi xayri taxriiki binaa in uddiima ci lu dul mask ak binaal gu ñu saxal xanaa binaal gu gaar dong la kooku jokk ko ca shadda ni ki alu waaye ustuxsina rafetlu nañu ko nag fil mu daam bu dee binaal gu sax ni ki kayfa xaagi rafet na fa ban nga ni kayfa waxunu ni waajib la fa waaye rafet na fa wa rubbama uctiya lafdul wasli ma lil waqfi nasran wa fasha muntazima wa rubbama uctiya léeg-léeg ñu jox lafdul wasli kàddu ci ba ngay jokkale taxawoo léeg-léeg ñu jox ko ma lil waqfi la waqfu amoon ba di fa jëfandikoo loo xam ne waru waru ci woon dagan loolu nag bare na ci waxu arab wa ma adraka ma hiya naarun xaamiyatun ba nga taxawul ci hiya it du tee xaagi nga jokk ko ca te waqfu wo te hiya xam nga ni ci yaagi la baat bi yem hiya nga ni nga def ci xaw sakti ci waslu ma hiya naarun xaamiyatun lam yatasannax wanzur da nga ko gis xaagi xaw sakti la yatasanna rek moo doon mu daare ah loolu rubbama léeg-léeg mu am waaye xam nga tax koo bare dafa ne rek léeg-léeg rubba day tegtale taqlil léeg-léeg loolu dana mën a am la lafdul wasli ñu jëfandikoo ko ci lafdul waqfi ñu jëfandikoo ko ci lafdul wasli rubbama otee léeg-léeg ñu jox lafdul wasl maalil waqfi la ñu waroon a jox waqf nasran ci fudul way ni ki loolu wa fasha siiw na bare na muntaziman di aji nos ah dégg nga bare na nag bu dee ci way waaw lu mel ni ki ataw naari fa qultu manoona antum seetal manoona xam nga ni xikaayab man dafa noon fi- wa in wa in tasil fa lafdu man laa yaxtalif xam nga ni ne woon na boo dee jokk man rek ngay wax loolu passé nañu ko ci baabul xikaaya waaye nettali woon na fa bayt bi fii faqad wasala bi lafdil waqf ndax manuun ci waqf rek lañ ko waroon a wax léegi nag kii wax na ko ci waslu ataw naari fa qultu manuuna antum nee na loolu fasha siiw na moom
moom day wax ci bunt bi la ñuy imaala almumaal dana ci wax sabab ba sababu imaala dana ci wax maaniul imaala dana ci wax maaniul maani li ñuy imaala ak li ñu waruta imaala sababu imaala ba ak lay eh, ak ak lay tax sabab bi dootu mën a liggéey ak lay tax loolee daan sabab bi moom it mu banki loxoom ba sabab bi dellu mën a liggéey mooy ma loolu la ci wax mu jëkkee nag li ñuy imaala al alif al mubdala min yaa fi taraf amil kada al waaqiu minhu l yaa xalaf doona mazidin aw shuzuzin mu ni amil imaalaal al alif al alif al mubdala min yaa in fi tarafin lalif goo xam ne dafa wecci yaa ci pegg ramaa du alifa ca mujj alif googee mubdalun min yaa i ramaytu su ko defee ña seen luxa di imaala ci arab dañuy wax ramee ah daa alifam ci lan la jóge min waawi daawati moo tax ñooñee di imaala duñu ni daai déedéet di dëgg am na ñenn mutatarifi luxa yoo xam ne danañu ni ah alifu daa bil waa waaye cosaanam waaye yarjiu lil yaa te loolu danañu ko wax léegi alif goo xam ne yarjiu fi baadi tasaarifihi lil yaa i ni ki Moustapha waaw la alifam woon te ñay imaara danañu ni Moustapha ndax da nga naan istafaytu ñu ni gannaaw mën nga ni duiya aha boo ko binaa olil mafool da alif ga day soppi ko yaa am na ñu jaar foofu ba mën ni dae waaye loolu day moom moom la nuy mujje nag moom loolu moom daal li nga xam ne mooy mazhabul jumhur al alif al mubdala min yaa in fi tarafin ci peggu baat kada kada naka noonu alwaaqi alif ga nga xam ni dégg nga jógewul woon ci yaa waaye alwaaqiu day tabbi al yaaw yaa xalafan di remplace minhu ci moom dégg nga de ci ci ci ci loxatu rabiata nee na dana nopp dana dana mën a nekk doonte nekkul jóge foofu ni ki alifu xublaa kenn néewul ci fenn la jóge ndax noonu la fi dikke moom ci boppam alifu taanis la kenn du ni ci saanam waa ak malha ah li qawlihim fi tasniyati xi malha yaa nekk xubla yaa ni moo tax ñu ne alif gi dana mujj nekk yaa kon mën nañu ne xuble ak malee waaye nag alif ga nga xam ne yaa dana ko remplacer te doona masidin du jégee ni dañ caa yokk dara dugg amma bu fekkee ni dañ caa yokk dara kat kooku dootu konte alifu xulaamun dellu ga muy dellu ak alifu xafaa dellu ga ñuy dellu yaa nga ni xufayyun seetoon xufayyun léegi alif gi soppiku na yaa ngir yaa gi ci topp wala wala asayya ci loxo Husayn asayya sama yat wi ah abu abu maanaam alhuzaliyu shaacir ba mu yarsi banihi lxamsa du mu wax sabaquu hawaya wa anaquu li hawaahumu fa tuxurrimu wa li kulli jambin masraw sabaquu hawaya hawaaya ñoom dañuy wax as asaaya ñu ne asaya huzayl hawaaya ñu ne hawaya ñoom ci boobu loxa rek la mooy shudud kooku wala nga xam ne mazid la jaxasool alifu xulaamun soo koy tasxiir la wax xulayimun alif ga soppi ku ne yaa ngir yaawut kii gi kooku ziyaadatu yaa googu loolu moom waxunu ko googu dellu alif gu yaa di remplacer bi sababi masidin yaaw ka yaaw tasxiir wala bi sababi shududin ka lugati huzay kooku du tax nu imaale ko walima talihi ñeel na alif ga nga xam ne dafay topp ci moom hattaanis maa adimal haa a maana atteb la amul haa danañu ko ko jox li nga xam ne haawu taanis topp ci moom ni ki tawreet tawreeta dégg nga aha aha aha kooku ni ki fataatun nga ni fatee fatee fateetun haawu taanis ca topp loolu dana am aywa wa hakada badalu ayni lfili in yaul ila filtu kamaadi xafwadin wa hakada naka noonu alif goo xam ne badalu ayni lfili la dafa remplacer aynu fil ni ki xaafa alifam xawifa daana alifam mina dayanna daana mina dayn alif gu dellu ci alif goo xam ne dafa remplacer aynu feel danañu ko imaala waaye ci ban sart nag in yaul ndem day dellu inda isnaadihi lil fail ila filtu te bañ a doon fultu bu mu mel na alifu qultu du dëgg bu mu mel na na dollu ci filtu niki tey xaafa soo ko soo faila bil kasri la li ko yóbbu ci filtu day faila bil kasri xawifa yaxwafu ñu naan yaxaafu léegi kon soo ko dee wéer ci fayil comme ni mu waxoon ci toru laamiya xiftu ngay wax du dëgg xiftu ngay wax kon fil xiftu was noom mooy filtu ayin ga dafa dañ mooy alif googu comme ci filtu lay dellu bil kasri ni ki xiftu ak dimtu kooku kon dañuy imaala alifam nga mën ne xeefa daana nga ni deena du dégg wuteeg bu doon dellu ci fultu ni ki xaala alifam soo ko comme faala bil fathi la woon wa ida yak fat wa ida fathan yakunu fa minhu qad mujanisa tilka al ayni muntaqilan bihi ila fail kalimati kooku moom xultu fultu ngay wax moo tax kenn du alif kenn du imaala alifu xaala kenn du ni xeela ndaxte soo ko defee niinu wax xultu ngay wax dooni xiltu ah aywa xanaa wuuteeg xiltu min al qayloolati kon man nga ne xeela kazaaka taalil yaa naka noonu alif gu topp ci yaa loolu dana tax kat ñu di ko imaala ni ki alifu bayaanin ñey imaala dana ñu ni bayeenin imaala alif bi kasra nekkul foofu buy tax ñuy imaala du dëgg waaye lu ko def moo di yaa mbokkum kasra la yaa dafa am doole daanaka yaari kasra moo tax loo am doole la mu ni waaw wal faslu tufir bi xarfi naw maaha ka jaybaha adir lu doon cosaan nag na sabab bi taqaloog alif gi ni ki alifu bayaanin nga ni bayeenin waaye wal faslu taqalee bi xarfin ci benn xaraf uxtu fira baale nañu ko aw maaha wala mu ànd ak haa ba nga xam